Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Deuxième édition du Grand Carnaval de Dakar, l'événement est prévu du 26 au 28 novembre 2021. 500 participants sont attendus à ces rendez-vous culturels initiés pour valoriser la culture sénégalaise. Carnaval, exposition, animation et dégustation de plats sénégalais. Voici l'initiatrice du Grand Carnaval de Dakar,

Donc ça, c'est le thème de cette année. Et on aura un peu comme nouveauté un pays plutôt qui est invité, qui est le Canada, euh, et également euh, le Québec qui sera là également. Donc ils ouvrent un peu la voie à ce qu'on voulait, euh, ce qu'on souhaite faire avec le carnaval, c'est-à-dire Euh, proposer, montrer, valoriser notre diversité culturelle, mais en même temps s'ouvrir en invitant euh, des pays amis à venir participer donc à, ce, à, ce, à cet événement-là. Donc le Canada sera présent, donc avec une création euh, très très originale euh, parce qu'il s'agit d'un conteur donc, sénégalais qui s'appelle Tcherno Diallo, qui fait une création avec une conteuse canadienne donc, qui s'appelle euh, Kacharok. Donc ça, c'est une, une, véritable nouveauté euh, cette année. Donc cette année aussi, c'est toujours donc, la diversité culturelle du Sénégal que nous présentons, mais nous voulons à, chaque fois mettre un focus sur une culture en particulier. Donc cette année, c'est la culture Lébou, donc vous avez pu voir euh, le terrasse du Chimoy donc ce sujet-là. Donc nous allons certes voir des Goumbé, Ndawarabin, mais également beaucoup d'autres choses vraiment, moi que j'ai appris pendant la préparation de l'événement, beaucoup d'autres choses qu'on ne connaît pas. Euh, et ce sera de belles surprises, euh, nous invitons euh, tous les Sénégalais dakarois à venir. Nous allons aussi travailler sur le lien entre culture traditionnelle et culture contemporaine. Donc ça aussi, ça va nouveauté sur cet événement-là, avec des tableaux, des choses qui vont être racontées par de la culture urbaine sur des rythmes traditionnels. Et puis poursuite des rencontres autour du salon journalistique Ndadje initié par Goethe Institut. La programmation musicale selon le format radiophonique a été le thème débattu par Coco Jean de la radio ITV. Il est longuement revenu sur les aspects de la programmation musicale, comment réussir une bonne Quelles sont les qualités que doit avoir un bon animateur? Doit-on avoir une programmation thématique ou bien faut-il animer pour faire plaisir à l'antenne et non imposer? sa propre vision des choses. Que pense l'animateur chevronné des stations radio et des animateurs Nous avons posé ces questions à Cocodine. Voici ses réponses. À travers toute la programmation, c'est-à-dire quand vous écoutez la radio, dans les 15 minutes, je vous donne un petit bout de chaque, euh, génération des euh, Je pense que les jeunes aujourd'hui, les animateurs, ils ont, ils plus accès à l'information que nous l'avons à, à, notre époque. Nous n'avons pas de téléphones, de téléphone pour pouvoir chercher les informations très facilement. Mais ils n'exploitent pas comme on, on, comme ils devaient. être beaucoup plus en avance que ce qu'on était aujourd'hui. Mais euh, aujourd'hui, c'est plus c'est plus un show que, que de l'animation. C'est de l'animation. Ce n'est plus de l'animation, c'est du, du one-man show. On ne fait pas plaisir aux, aux auditeurs, on impose ce qu'on veut aux gens. Et c'est ça qui est dommage. Et quelles sont selon vous les, les, les bonnes qualités euh, requises pour un bon animateur D'être, d'être, d'être ouvert, de, d'écouter tout le monde, de donner la chance à tout le monde parce que Ton rôle, c'est pas seulement aider les grands, c'est aussi d'aider les petits. Moi, j'éprouve plus de plaisir à aider les jeunes talents que ceux qui sont déjà partis. Parce que ceux qui sont déjà partis, ils sont partis. C'est-à-dire, tu peux que les accompagner. Alors que les jeunes, ils ont besoin de, de, de cet outil de radio-là pour pouvoir exister. Et si tu as le, si tu as le temps, je vous dis vraiment le, le temps d'écouter ce qu'ils font et puis tu peux apprécier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et leur dire et surtout de leur dire, c'est pas bon. Parce que ça, pas parce que tu viens de, tu viens, tu viens pas de mon quartier que c'est pas bon. Ça, c'est pas quelque chose d'objectif. Mais lui dire carrément, écoute, il y a, comment tu chantes, c'est faux. Ou comment tu, tu rappes, tu n'es pas dans le temps. Ou bien, ce que tu dis, c'est extrêmement vulgaire. Moi, je ne peux pas passer ça sur ma radio. Etc. C'est des choses comme ça qui les aident. Peut-être qu'il va mal le prendre, il va dire, ah, le gars là, c'est possible. Mais tu lui dis la vérité. la vérité, on se dit pas la vérité ici. Mm. On se dit tout le temps, non, avec le cloud, nice. Tu pars, tu le mets pas. Il comprend pas. Mm. Dis-lui. C'est se dire la vérité aux artistes. Je dis, écoute, ce que tu fais, c'est bien, mais, dis, dis, dis. Parce que tu as de l'expérience. Tu, écoutes, tu, tu, as, tu, as, tu as aidé beaucoup de gens. Mais tu trouves qu'il a du potentiel, mais dis-le lui, tu as du potentiel. Mais travaille un peu plus parce que Desna, tu n'entends pas ça. Mmh. Moi, j'avais une pile de CD comme ça, mmh. où c'était des CD que j'allais diffuser mmh. et un mur de CD où j'ai dit désolé, je ne peux pas diffuser. Un mot sur la formation. Vous dites que vous êtes en train de former des, des, des jeunes de oui, la on, génération. Je, je forme. L'intérêt de la formation C'est pour, pour aider ce, ce milieu. C'est pour qu'on qu ait des meilleurs animateurs pour pouvoir aider ces artistes-là à, à, à vivre de leur art. de, de manière équilibrée, de manière sérieuse et, et pour faire avancer le Sénégal d'une autre manière. Mais aussi avoir des animateurs responsables à l'antenne, c'est-à-dire qu'ils qu aient peur de dire certaines choses. Et encore une fois, qu'ils aient des interdits. N'oublie pas que ça, ça ne se fait pas en radio. Mais si personne ne leur dit, ils ne savent pas. On ne leur dit pas que ça, ça ne se fait pas. Ça, ça ne se dit pas. Mais juste être correct. La tyrannie du mbalax, un mot sur la tyrannie du mbalax sur euh, presque toutes les chaînes radiophoniques, c'est le mbalax qui domine. J'en ai, j'en tout à l'heure, c'est un, c'est facteur économique tout cela, c'est du business. Euh, le mbalax aujourd'hui, euh, si tu écoutes certains tranches, ils gagnent beaucoup d'argent en diffusant cela. Tu vas, leur imposer de, de changer, de faire autre chose, ils perds l'audimat. si tu perds l'audimat, tu perds ton. Tu... <laughs> ah, c'est un truc. C'est du business, la radio. Tu dois tu, tu as des charges. Cet immeuble-là, qui, qui, va payer le courant si, si la rentrée, il n'y a, pas, y a pas de publicité C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. dal leen a gàmm ki seen xibaaru mbatiit dañu koy dooree ak ñaareeli édition carnaval bu ndakaaru bi nga xam ne ñi ngi koy ubbi ñi ki tey ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre bi jàpp jëm ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru novembre 2021 bi lee lu tollu ci téeméeri participants dañ ci bokk niki noonu rendez-vous culturel bu mag ngir daal gaaral lépp lu jëm ci wàllu matitu réew mi jaaree ko ci wàllu ñaw wàllu tissu exposition peinture exposition foire ak it lépp lu jëm ci wàllu spectacle animation nañ ci déglu Fatou Kassé Sarr bi nga xam ne moo sookee bi festival ci micro Odile Minkilaan carnaval de Dakar bi dañ ko organiser pour euh, valoriser maanaam fësal ak euh, rafetal suñu cosaan ak suñu aada donc thème bi ngi nekk ci euh, conte des légendes mooy léegi du Sénégal et d' su boobaa donc dinañ proposer ay activités yuy wane li ñuy wax pratique culturelle yëpp maanaam dinañ am fecc dinañ am lu jëm ci théâtre euh, dinañ am lu jëm ci euh, ci cuisine togg dinañ am lu jëm ci artisanat dinañ am tam lu jëm ci euh, culture urbaine donc dinañ am tam jëm ci benn dëkk bu ñu invité boo xamante ne moom tam dina ñëw partager lu jëm ci ay léebu dëkkam mu nekk ne carnaval bi nag day ubbeeku c'est-à-dire dañuy présenter culture Sénégal mais dañ koy ubbi tam pour partager donc mën nañ wax ne que ci événement bi nii malgré bon li nga xamante ne wàññi nañ ko ci ndax Covid bi am na lu mat euh, cinq cent euh, personnes lu téeméeri nit yoo xamante ne euh, ñu ngi ciy jëfandiku parce que mooy troupe yi mën na nekk tam équipe technique yi di ci liggéey ak ñëpp ñi nga xamante ne daal seen doole dugal nañ ko ci dinañ ci gis seen bopp waaye mu demee mu am leneen tam mu nekk moom la ñuy mooy tourisme mun na nekk tourisme local euh, walla tourisme international mooy ñeneen ñu jógee bitim réew ñëw Sénégal voilà pour fekkee carnaval bi te ñooñu ñëpp bu ñu ñëwee dañuy consommer maanaam dinañ jënd lekk dinañ dinañ tëdd ci hôtel Euh, dinañ jënd ci artisanat bi dinañ dem seetaan yi ay concert wala ñu demee noonu donc loolu dafa nekk tam ci euh, li ñuy wax démarche marketing territorial mooy nga fësal sa gox fexe ba ñu tiire ci loo xamante ne mun euh, ci dëkk mun nañ ko njëriñoo parce que médias ñëw commencé nañ sax de valeur boo xamante moom mooy ambition wu ci loolu daal di wax ci ëttu waxtaan ak diisoo yi nga xam ne ñu ngi ko dippee salon journalistique ndaje yi nga xam ne gët ñu ngi koy amal di ki tàggal ay borom xam-xam ñu waxtaane lépp lu jëm ci wàllu luy suqali mbatitu réew mu jaare ko ci wàllu mbuug muy musique bi la yoon nag waxtaan mu ngi jàppoon jëm ci wàllu programmation musicale euh, ci format radiophonique maanaam naka la ñu war a mën a dégtalee askan wi di ñuy déglu mbuug ci rajo bi ak lan la laaj ki nga xam ne nag moo doon def waxtaan yi di ko xarañ ci wàll wi di ko ko jiin di animateur boo xam ne kenn dootu ko présenté jot na dellu si ci lan mooy programmation musicale naka la DJ maanaam animateur bi nga xam ne moo toog ci rajo bi di waxtaanee musique boobule di mbuug mi nan la war a mel lan moo war a nekk ay qualitéem lan la war a xam ak it fan la war a yem ak it sax moom koko jiin nan la gisee animation ci rajo yi fu mu nekk nii le laaj yëpp ànd na ci ay tontu nañu ko teewlu. su ma joxee sama avis organisation en quelque sorte ni ñu tegee musique euh, du teg musique kese euh, su ma ko bëggoon expliquer euh, de manière mu gaaw soo defoon benn émission benn soo amoon benn rajo cent pour mbala waaw cent pour cent musique sénégalaise par exemple da xool yenn musique sénégalaise ñoo ñoo fi nekk Sénégal da ngay calculer loolu yëpp def ko ci benn def ko ci benn différentes catégories par exemple mbalax euh, musique salsa et cetera et cetera et puis après da ngay dugal yëpp ci euh, machine bi et puis tu proposes en fait da ngay di proposer euh, différents styles de musique pour auditoire c'est ci euh, musique Sénégal animation bi en tant que ngay professionnel yàgg ci euh, nan ko nan nga ko jàngatee. comprendre nan animation Sénégal. léegi waa euh, animation Sénégal ak bu tey ak bu démb. ah nu nga ko gisee. waaw nu ko gisee. je pense que tey booy am nañ am nañ vraiment outil. parce que ñun amuñu woon internet suñu studio lu bëri am mais ñoom ils ont am nañ avantage boobu c'est-à-dire soo xoolee téléphone mën nga xool tout de suite album bi nu mu tudd wala soo soxlee benn information ci benn artiste mën nga xool tap rapidement joxe information boobu mais je pense que euh, li ñu li ñu li ñu en avant c'est-à-dire lu gën a important pour ñoom c'est plus euh, joxe information wala wala euh, dimbali seen bopp la ñu nekkee quoi comprendre que ñoom ils sont là pour eux-mêmes euh, nekk ñu fii pour pour pour euh, auditeurs yi ils sont plus là pour seen bopp. et loolu ah. euh, il faut ñu ñu xoolaat ko parce que je pense que animateur son rôle d'abord c'est d'informer de de de même pas informer mais éduquer en quelque sorte à travers la musique loolu mooy seen seen rôle. yan la animateur bu bon euh, xam liggéeyam vraiment xam liggéeyam c'est c'est très vaste mais euh, critère boobu la la la jëkk a génn sama bopp parce que euh, am na ay animateurs yu bëri xamuñu sax lan mooy seen rôle je pense que il faut commencer déjà ñu xam seen rôle avant ñu dugg ci ni nga ni nga laaj léegi. d'accord mais est-ce que waruñu leen a former aussi. Hmm? comme ni ñuy former journalistes yi animateurs yi tamit. je pense je pense que je pense que formation animateur c'est impératif c'est primordial c'est absolument nécessaire pour avancement euh, euh, même l'éducation de suñu population parce que les jeunes écoutent ces animateurs là ñoom si ñu amul dara seen bopp s'ils n'ont rien à proposer c'est des jeunes à qui ils racontent bêtises yooyu bokk nga ci ñuy former sax animateurs yi. est-ce que bokk naa. bokk nga ci ñu koy def. waaw waaw man damay former animateur waaw parce que man dañ ma former. fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbàtt it jërë ngeen jëf ci déglu bi.